Touba Khayra Touba Khayra yéen ñi dëkkee jaaxle ngir am ay meubles yu baax te ànd ak qualité enfin la solution ñëw na ak menuiserie tapisserie Touba Xayra lépp loo leen soxla ci wàllu meuble ci seeni salon ak ay fauteuil de qualité exceptionnelle chambre à coucher wala nga bëgg réfection maanaam defaraat ba mu yànj lool bul am jaaxle dawal gaaw chez Touba Xayra tapisserie menuiserie yemul foofu de ñi bëgg seeni coussin oto ànd ak jamono ak qualité Touba Xayra moo si mën loolee lépp mbokk yi ci ay prix maanaam njëg yu exceptionnel jàppandi lool jàpp leen adresse bi ñoo nga ca Géejawaay fa pare ak tournal Serigne Assane Fall ak ca Kër Massar cité Safko ay ndaw yu sawar dynamique te mën la ñuy def ñoo fa nekk mën nga également aussi def sa commande ci lépp loo bëgg ci wàllu meuble loole ci 77 498 72 72 77 713 94 57 wala ci 76 490 72 12 ak menuiserie tapisserie njàmbatu ci wàllu meuble jeex na tàkk. Touba di xeex ak Siteu dina mën a pousser Siteu te Siteu du ko touché kon Siteu benn loxo la war a mën a xeex moom te daw a rapproché bi fexe ba invité Modou xeex ak moom combat à distance. ci benn loxo waaw xam nga Modou nag mën nga koo xañ mu jàpp. Uh-huh. ba pare ngeen bëre mu daan parce que yaram bi dafa man di bëre boo ko jàppee looy waaj a def xam na ko uh-huh. mais Siteu nag bu jàppee maanaam eh, avantage wu. ci rallon sam mën na xañ Modou mu jàpp ba pare benn nag fi mu doon yegg mbëri mbëri di ko daan wala muy daan bëri digalu mu yegg fa Modou parce que nag saa bu yeggee ci tànku Modou bu xaree kot ndaa maa ngi de bu xaree kot dee ca mën naa am li mu bëgg parce que cër yi jot na quoi. ayca ndawal kon. Mm. ayca Modou combat bi bari na coow de. waaw bari na coow kay. Mm-hmm. état bi Siteu waaw Siteu mi ci. Siteu mi ngi ci de wax dëgg yàlla yor na état boo xamante bi nii comme yenn yi gars yi yoroon ak moom yi mu yor bokkul parce que tamit gis na ne euh, Modou bi muy bëree ak Eumeu dafa jël poids bu bëri ñu ñëw ñu bëree xam nga Modou dóor ko mu daanu bi muy bëree ak Ama Ama état bu rëy la andi xam nga poids quoi mu ñëw mu duma ko daan ko boo ñaa andi poids mu ñëw duma ko daan ko kon Siteu bu muusee warul andi poids. Mhm. dafa war a wàññi ñu ne 135 combats Siteu du am ci moo Lo. loolu amul loolu du dëgg de. loolu du dëgg waaye. non non boo leen ci géej gi 135 combats mhm. ah Siteu day for day for for for for. Hmm? loolu mënta nekk di. barke Serigne Saliou lu ma gëm laay wax. 135 combat bu ko Moodu mënee daan Siteu kon Siteu jëratul muy wooye boppam Siteu. na dem ñu wooye ko tur bi mu tudd dama koy bañ a wax. parce que turu jàmbur bu jëm ci bés am na ñu xamul Siteu nu mu tudd. loolu mënut a ne. mënul ne de du dëgg de. tey tey boo andi woon Siteu ci bis bi loo koy bëree lool. bu ma ko andi woon daal en tout cas du ma ko jëloo poids bu bëri. dinaa ko andiloo nag benn poids bu maintenir. plus de 100 kilos. cent cinq kilos gën gaa bëri cent cent cent cent six kilos wala cent sept kilos ba pare yoo xam ne miskil lay doon du nekk manche comprendre nga li ma tey droite lay jiital Modou gauche lay jiital ba pare moom bu mu xeex ak Modou une deux mukk saa bu xeexee Modou une rek day dugg ci avantage su Modou parce que boobaa Modou da koy mën a door parce que Modou xeexu mbedd boobu ku ci dugg ak moom moo la man nay xeex ak moom benn droite benn droite boobu ba pare bëreek moom lang ga ba pare bu jàppee na xañ Modou ngeem jéem a xool lan la Modou def mais bu jàppee Modou xañ ko ngeem ba pare bu mu ko féete suuf ama nit mën nga koo xañ ngeem te doo ko féete suuf saa bu ko féetee suuf nag puso machine bi moom day booy moom hmm. avantage bi xeex bi ci kan la ëpp ci avantage ñaari bëri sans départ ci niñ xeexee bu ñëwee xeex xeexu mbedd Modou mën na koo touché mën na koo touché touché yu metti mais saa bu ñëwee xeex benn benn Siteu mën na ci avantage parce que moo sut Modou te saa bu tàllalee loxoom day dal ci kanamu Modou Modou nag mën na moytu moo dàq moytu Siteu moo ko daax xeex mais nag saa bu duggee ci dooral ma doo teel teel foofa Siteu du fa avantage ma saa bu demee ci benn benn Siteu xool li muy door saa bu nee taj loxo bi macha allah dafa gudd day dal ci kanamu Modou mm-hmm. ñoom ñaar bëri ku dàq bëri mm-hmm. non bokkul li ñu wane ci bëre Modou moo dàq bëre li ñu wane ci bëre mm-hmm. mais mbër dàq nga ko bëre ba taay mu daan la bëri na ci ay combat yoo xam ne mën nañ ko wax am na yun mën ta wax am na ci mbër yoo xam ne dan naan ci bëre marle ak mbay guy gi marle ko dàq bëre aller retour te mbay guy gi ci bëre la ko fekk boobu daan ko Modou mën naa dàq bëre Siteu ñu bëre Siteu daan ko. loolu du ci dara. jërëjëf jaajëf. boo gisee ful bu taxaw de oto moom boo gisee ful bu taxaw war ngaa mun def demi tour Sénégal laa lay de. waa xam nga jàmm moom suñu suñu suñu xarit la suñu lépp la xam nga te bu wootee war nañ ko uy si bu woor ci fii nag si farata muy war a jël soxna ñu koy ñaan yàlla bu baax yàlla jubale ko ak soxnaam may leen gudd fan ak wér ba ñu am njaboot yu barke incha allah. bu cool daan bëri si làmb ñu naan camp yi clan bi ak clan bi xam nga jàppal diw bàyyil diw bis yu mel ni saa amee du ñu xool ku xuloo ku xuloo gars yi ñuy daal di daje si bërëb ba euh, daal di demante daal di jëflante loolu tey jàngat bi su ëxlu làmb war def si moom yu tool nii lan la. non dëgg xam nga tubaab bi dafa ne chaque chose à sa place xam nga tamit loo gis rek ak mm, fa mu war a nekk la mu war a ne am na côté yoo xam ne côté xëccoo la bi am na côté yoo xam ne moom dëgg yàlla ñëpp ñooy ànd bu duggee si cadre liggéey bi nag ku ne nga concentré sa liggéey mais bu doxee lu dul nag doxalante teranga ak comprendre nga doxalante si bànneex ak naqar da koy jëfee ba mu mat sëkk te boo gisee ñëw bi fii metti na wax dëgg yàlla mais ñëpp jaayante nañ ko ba egsi quoi weekend bi ak ouverture des classes yi marché bi xat na lépp xat na mais gaa yëpp jaayante nañ ko ba ñëw vraiment mhm. loolu nag boo gisee tamit jam tamit doo ko waral parce que moom tamit du takkam lu kenn quoi lu waaye xewle rek dina la wuy si mhm. dafa yàgg wuy ji nag xam naa ne moom bu ndaw ci lépp dajaloo moom dina mën dara parce que dafa yàgg wuji dafa ndaw tala ndaw tala ndaw tala ba sonn macha allah. <laughs> dina kontaan waaw. loo koy wax parce que yaa njëkk si néeg ko encouragé rek jam du nga ko dina xam naka lay gérer affaire bi di ko di ko di ko di ko encouragé rek xam ne sëy moom boo si duggee rek mooy ko ci dugg nga ci porte boo xamante ne wax dëgg yàlla parce que tey képp ku jund rek bu yàlla may la bakkan ñaan nga yàlla màgg am soxna am doom xam nga am teraanga tey doxagum na ay pas yàlla mi ngi koy suturaal di ko may teraanga tey mu am soxna kon yàlla na si jaboot topp incha allah jërëjëf. assurance nuyu naa la. allah Serigne maa lay ngi sant bu baax bu baax. tey lan ngay wax si bisu jàmm bi mu seen xarit seen soppi seen doom. waaw mais sant yàlla rek jàmm moom waaye ñëpp la. suñu waay la suñu suñu la suñu lépp la quoi. di ko ñaanal bésam bi rek di ko si ñaanal jàmm di ko ñaanal sëy bu mu barke ñu am si ay doom yu jullite doom yu lislaam incha allah tey lan nga koy wax tey par rapport ak négocier parce que ku nekk xam ne ni sëy dafa nekk lu doy waar lu sensible te mu ma bi ngay am soxna léegi xaw na diire tuuti tey boo amoon conseil bi nga koy jox par rapport ak loolu waaw mais xam nga ay conseil sëy moom dafa xaw a sensible ba tax na jam suñu frère la suñu raq la suñu suñu mag la suñu lépp la dinañ ci waxtaan bu baax a baax ak moom incha allah mais di ko wax rek affaire yi moom voilà léegi dugg na cour de grands. waaw dugg na cour de grands. tey gën a gérer. gën a waaw gën a góorgóorlu rek jam sax kenn du ko ñaax moom nante la xam na ni mu demee quoi. ñu ngi wàcc suuree bi le 24 novembre. pare nañ de. yooyu jàmbaar xam ngeen li ngeen tëgg lan la. ah jàmbaar moom. mais combat bi ngeen tëgg coow dafa commencé. lu jur signature di am face to face am di continué waat. loolu la loo loolu lañ si jublu. loolu mooy làmb coow. làmb coow coow li dafa bari te ñoom gars yi dañ naan jàmbaar ba léegi defaguñ promotion coow li bari bu ñu defee promotion. nu jëm nan lay demee kon laa bëgg xam leen bu leen def sax promotion bàyyi leen bin bin bi ngeen nga téye nii baax na tempo ñu gérer ko nii gérer leen ko kon dal promotion bu amee day am ñi nga xamante ni day xaw a métti si ñoom. kon dal jaam nañ baax na.